waaw tey ñun jeunesse géejuwaay bi ñëpp ñoo génn ñëw am lu ñu bëgg a leeral ci dëkk bi lu fi xewoon gis nañ ko 8 mars bee passé amoon na fi bëgguñu mu amaat fi mooy que jeunesse boo xam ne dañ leen manipuler ñu nekk ci biir dëkk bi ñu leen di xeexloo di leen di xulool di leen di sànloo ay xeer 14 morts ba 14 morts am ci déggoo ci ñoo xam ne maanaam ay responsable lañ déggoo ci kenn sa doom dee na ci ay baadoolo ñoo ci dee ñu ci mel ni ñun ñu ci ni ñu nekk ñu ginnaaw fii nag ñun jeunesse bi dañoo yeew kenn duñu xeexloo kenn ñu saagaloo kenn duñu sànniloo xeer ndax ñun dañoo toll jamono joo xam ne fi mu ne nii ku ñu jàppale lañ soxla mais soxlawuñu ku ñuy xeexloo muy bépp jeune u géejawaay rawatina gis nga comme li ñuy tax man soo gisee ma génn nii di wax mooy mbëriñ si bëgg di yàq seen dama leen a bëgg a xam ne mbëru géejawaay amul kenn ku ci taxaw ñu lay jël nerf yi naan la xeexal wala nii wala nangam ak ñun xeexuñu xeexloo waanuñu ñun xam lan lañ tal ku jàppale jeune Guédiawaye comme ni si Lat Diop di def président di jàppale mbëri di leen ñaax si loo xam ne ni tey jii pour loo xam ne lu baax la mais kaay xeex tey jii ku ci dugg ci ay wàllum xeex kaay xeex ba bañ rey la si say mbokk ay perte suñ la si gaañee wala suñ la si tëjee say mbokk ñooy sonn mais ñun xeexloowuñu kenn ñu kenn ñun suñu Guédiawaye gi jàmm lañ si bëgg ku fi nag nag ñëw naan da ngay jéem a taali pono wala da nga fiy jéem a xeex lu ci fekk yaa ko teg sa bopp ñun xeexuñu xeexloowuñu waa Guédiawaye dañoo jël suñu mesure ñu suñu responsabilité jëluñu sécurité fay ñu nit jëluñu ay nervi ñun population Guédiawaye ñun ñun population Guédiawaye ñun population Guédiawaye lu ëpp tuur ñun jeunesse ñoo génn kuñ fi gis nga fay ay nit pour muy taal pneu wala muy euh, sàcc dugg ci ay magasin jàmbur wala muy jël alal jàmbur doo toog ko defati doo toog ko defati laa la wax parce que il est temps il est temps ñun xam nañ kii liggéey dëkk bi te mun ñoo nax fii ñëpp ku nekk xam ne kuy liggéey ku nekk xam na kuy tricher ñun xam nañ kii liggéey fii ci biir dëkk bi ñun nag ku nekk am nga foo ba bañ ñu ku nekk far fu ko neex ku la neex nga àndal parce que demi pays pays démocratie lañ nekk mais booy àndal nit àndal ak moom ci lu jaadu ak cu responsabilité man nit du ma xeex loo mais le président la Diop moom ci dëkk bi la nekk di def ay social. di jàppale sëriñ di jàppale mbëri di jàppale ñëpp ñoo xam ne maanaam dëkk nañ biir géej waay. waay la loolu waay. ku mel ni kooku bu ñu keneen ak keneen maanaam ñun lépp dañ koy bëgg am au niveau de géej waay. li président Lat Diop bëgg nag ñun ñu ngi si ndax parce que moom la ñuy gis mu ngi ñuy jàppale di jàppale mbëri bu baax a baax ñun loolu lañ amoon lu ñuy wax mooy xeexloo ñu kenn xeexloo waa nañu kenn ku bëgg a xeex nga dem xeexloo ci say mbokk mais mënoo yor say doom yor say mbokk xeexloo leen tëj leen sa biir kër suñuy jàngi oto leen di yóbbu fu ñu bëgg dem oto yor say garde corps xeexoo xeexaanoo bëgg di xeexloo nit ñi pour lan loolu. ndax xam nga tey tamit benn nit mënul jóge si àll benn débutant si politique xam nga jóge si àll ba ñëw bëgg a soppi réew mi di soppi jikko yi léegi jeunesse bi boo xoolee sax léegi jeunesse bi xam nga ñàkk yar gi da see bari quoi léegi ku nekk da ngay toog sa téléphone def say vidéo di wax neex xam nga. loolu garaawul mais mais au niveau de Guédiawaye fii ñun ñoo fi dëkk fii banlieue la te ñun tal nañ yeneen yu dul yoo xam ne nii di génn si mbedd mi di xeex wala di sànnante xeer si loo xam ne nii kumpa si ñun xam nga te tey ki leen di xeexloo noonu ñun xamaguñ lu mu mën ak lu mu mënul muy Ousmane Sonko yaa ngi may dégg ñun mënuñoo basé wu si ay wax xam nga tax ñuy génn di xeex di wax nag jeunesse bi na leen ku ne na toog sa kër bu leen kenn woo si violence xam nga ndax ñi leen di woo si violence tey ñoom bu ñu leen woowee si violence ñoom ñu ngi seen kër uufanteeg seen jabar yi ñu leen di njaral xam nga di leen defal ay njarum soow ñuy naan ñun ñuy reyante si mbedd mi si surtout banlieue bi. ñun nag kiñ gis mooy Lat Diop li mu bëgg si lañ ñuy dox mooy ñu xeexuñu xeexaanuñ ñun daal ñu ngi fexe nuñ sàmmee suñu gox géejawaay loolu lañ amoon lu ñuy wax